arrestation opposant mais ban ban opposant la ñu arrêté. avant ñu koy parce que avant avant non avant euh, non non ñooñu avant ñu nekk ay opposant mais dañoo nekk d'abord ay citoyens ils sont soumis à la rigueur de la loi ana koo xam ne jàpp nañ ko ci loo xam ne war waruñu ko jàpp fi mu toll fii comme si c'est un collègue ah, commissaire Keita. commissaire Keita commissaire je plaide d'ailleurs pour lui pour que ñu bàyyi ko parce que pour moi fekk ni loolu rek moo taxoon ñu jàpp ko. Mm. Diomaye ak euh, Sonko dañ doon xeeb président. bu dee loolu rek moo tax ñu jàpp ko vraiment nañ ko bàyyi parce que y en a qui ont fait des déclarations pires que ça mais am na koo xam ne fi nee na policiers yi ce sont des corrompus que il a des des des des enregistrements mm. audio yoo xam ne vraiment ça pour que ces policiers là sont des corrompus donc ñoom ñooy bàyyi nit ñi ñuy jàll ci géej bi te bu ñu jàll ci géej bi on a vu les conséquences c'est des morts qui s'ensuivent mm. à la limite les policiers sont complices maintenant de ces morts là et cetera ah wax nañu am na koo xam ne jàpp nañu ko fi muy wax affaire arme Bandiak et cetera le hmm. la il est en prison pour affaire Jérôme et cetera donc mais cest à que ñooñu sax la ñu waroon téye en instruction pour ñu xóotal seen wax et cetera mais est que li ñu jàppee commissaire Keita jaroon na def en instruction ñu bëri peut-être jàpp nañu ne xëy na jàpp bi sax war nañ ko mën a comprendre euh, ci benn côté mais instruction bi. mais moom laa wax moom laa la wax c'est ça xam nga. le juger en flagrant délit. xam nga commissaire Keita vraiment si je me si je m'érige en son défenseur. ça veut dire que vraiment moi c'est l'objectivité. parce que xam nga man ak moom ñaari commissaire la nekkoon fii. Mhm. Sénégal bi yëf yi di tàng. Mhm. moom c'était le commissaire du système. danoon jàppale Macky Sall lu lu mu yekkul Ousmane Sonko amul. man également dama doon jàppale Ousmane Sonko ak le projet lu ma yekkul Macky Sall amul et cetera. bon mais vraiment dans ce cas bien précis je crois que mais def na déclaration déclaration bi ñi ñi dëgg nañ ko lii la wax n'est-ce pas vraiment est-ce que jar ba ban instruction bi man dama xamul lan lay xóotal. Mhm. waaw lan lay ah, xóotal waaw loolu moo jaaxal ñëpp. parce que instruction bi man dama xamul lan la xóotal. waaw rek nañ ko juge en flagrant délit rek ñu bàyyi ko. Mhm. bon maintenant fekkee ne am na leneen loo xam ne jàpp nañ ko te leneen moo nekk ci gannaaw mais loolu xaw ma ko quoi mais vraiment je plaide à ce que ñu bàyyi ko fu ñu bàyyi Bougane fu ñu bàyyi euh, parce que Bougane contrairement à ce que les gens n'a pas été arrêté que les chiffres daf jàpp parce que il a dit des contre il a dit que le ministre de l'économie dafa daw il n'a pas voulu assister il a dit au président au premier ministre mun maa fekk li parce que chiffres yi ngeen wax ni c'est des chiffres faux. alors que boobu mu ngi ànd ak président alors boobu mu ngi ànd ak président et cetera nangam nangam que fekk loolu moo am dëgg dëgg dëgg que ministre bi moo wax loolu kon ma xam ne Ousmane Sonko ñàkkul fayda ba mhm. ministre boobu di toog si gouvernement bi n'est-ce pas mhm. n'est-ce pas donc loolu moo tax ñu ñu ñu ñu ñu jàpp ko donc je on les a pas en leur qualité d'opposant mais en leur qualité effectivement mmh. de citoyens qui ont enfreint la loi c'est tout loolu rek la donc euh, euh, te justice bi euh, nañ def bokk attention moi je fais un appel keroog defoon naa benn appel au procureur de la république parce que dama gis benn citoyen bu toog ne li nga xam ne moo xewoon jam ñaajo fële si centre international Abdou Diouf bi hmm. nee na cinéma la quoi mooy bi ñuy présenté présidentielle waaw nee na ay foo la ay xale ñoo doon foo cest à que pour lui notre président de la république et notre premier ministre ay xale yu doon foo la quoi yu doon euh, euh, fële. Euh, si jam ñaajo et cetera hmm. mais mu dolli si ne léegi xale yooyu doon foo danoo oo seen i xar ak seen i béy pour ñu wuyu si leen mais vous vous rendez compte cest à que dafa am yoo xam ne c'est très grave. c'est-à-dire que kooku non seulement dafa saaga premier ministre ak président mais dafa saaga même les sénégalais yi nga xam ne ñoo teew foofu mais il appartient au procureur de la république mmh. de faire en sorte que ces dérivés yu arrêté l'état là doit sévir n'est-ce pas léegi ku wax rek boo militants yi rek xaar ay xar lañu ay béy lañu et cetera quoi c'est mais c'est extrêmement grave mais gis nañu koo xam ne mais def na benn conférence de presse mais ñaata yoon la wax ni président day ñaata yoon la ko wax benn mais kooku moo toog aussi mu jàkkaarloo sénégalais ne ki ngeen fal xuusuma ñàpp la est-ce que ñi ñuy représenté ñu quest que ça veut dire mais kooku moo toog aussi nee ne seen premier ministre bi dafa yolom géñoo qu'est-ce que ça veut dire c'est ça la vérité moi je suis direct là boo nee nit ki dafa yolom géñoo ça veut dire nit ki bu jàkkaarloo jigéen rek day gaaw tekki euh, ki ki nu mu tudd ci géñoo c'est ça la vérité cest à que c'est un homme boo xam ne devant une femme il peut pas se il faut qu'on arrête cette dérive là sinon dérive la daf ñuy conduire li tubaab di wax chien li et chien li daf ñuy conduire ci lu ñuy wax anomie cest à dëkk boo xam ne y a pas de règle maintenant la justice c'est-à-dire que faut si ñaari piège benn bi du ñuy jàpp parce que dañuy bañ bu ñu jàppee ñu ne wooy nous nu nous comme euh, euh, régime ba ni mu doon def benn mais beneen piège bi mooy hmm. ñu bañ a jàpp parce que xam nga chaque fois bu Macky doon euh, justice ba dañuy ne wooy moo leen ko sant